salaamaaleykum euh, suñu mbokk yu internet yu Guédiawaye info euh, ñu ñëwaat di ko génn seen rubrique santé bu Guédiawaye info di leen amal euh, ba saasu ne tey nag ñu am gan gu am solo ñu koy wax suñu mbokk suñu naataango suñu petit frère docteur Mamadel Bassoum di chirurgien dentiste ñu ñëw tey pour waxtaanee ci bi ko dentaire waxtaanee ci au moins ci njëriñal defar bëñ raxas ba mu set mooy les avantages Euh, ñu bàyyi suñu invité docteur Mamadel basum mu nuyoo docteur ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah docteur Malick Koundoul maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci invitation bi. Mhm. donc man docteur Mamadel Bassoum la. Euh, di chirurgien dentiste maanaam ki nga xamante ne xam-xamam dafa aju lu jëm ci fajum bëñ. di jaajëfal waa Géejawaay info ci initiative bi nga xamante ne am nañ ko. ngir leeral askan wi jafe-jafe yi jëm yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu wér-gu-yaram waaw jërëjëf docteur waaw pour ci waxtaan ci thème bi teel a tàmbali euh, docteur te ñuy waxtaanee cetuk bëñ maanaam mm-hmm. au moins ñu mën a xam dëgg dëgg dëgg la mooy njëriñu toppatoo say bëñ mm-hmm. euh, balaa ñu dugg ci thème bi dëgg dëgg docteur la mooy njëriñu bëñ waaw mbëñ bëñ moom am na ay njëriñ ay njëriñ yu bare bare bare bare ndaxte bëñ moom mooy tax ngay mën a wax bëñ moom mooy tax nga mën a lekk bëñ moom moo tax ngay mën a reetaan mhm. donc euh, bëri na ay njëriñ yi nga xamante ne moom bëñ am na ko te daanaka nit buñ la xoolee sax lu ñuy njëkk xool ci yow mooy say bëñ loolu am donc loolu euh, day wane di firnde firndelaat rek njëriñ bi nga xamante ne bëñ am na ko mhm. ci nit waaye ay njëriñam sax romb na loolu ndaxte bëñ moom mooy tax nga mën di yëy correctement. waaw te yëy bu nga yëy correctement dafay dooleel sa wér-gu-yaram. Mhm. ba pare day tax ferñeent yi mën a dugg sa yaram et cetera. donc bëñ moom bëri na ay njëriñ yu bare bare bare bëri. dëgg la docteur duñ la déggee bañ bëri na njëriñ. Mhm. waaye ni mu bëree njëriñ yooyu gis nañ tamit ñu bëri dañuy am ay jafe-jafe jafe ci bëñ. Mhm. ñu bëggoon xam en fait jafe-jafe yooyu ñooñu. fan lay bën di jógee en fait. bëñ ñi ciy ëpp ñu ci amee problème. les origines nan la. les origines waaw jafe-jafe ba mu ngi jugee déjà lu ñuy wax quatre facteurs euh, benn bi mooy lekk bi nga xamante ne da nga koy lekk. Mhm. su diggee ci sa biir gémmiñ. waaw dafay fekk bëñ yi. waaw donc su fa fekkee bëñ gémmiñ gi tamit am na lu ñuy wax des bactéries. bactéries moom mooy euh, euh, nan laa ko mën a tuddee ci wolof. Mhm. en tout cas. Euh, microbe yi rek. ay microbe daal. waaw waaw ko mën a comprendre. Mhm. donc bactéries yi euh, ci biir gémmiñ dafa am ay bactéries yu baree baree baree bare ay xeetu bactéries yu baree bare am na si yu nga xamante ne dafay protéger gémmiñ gi. Mhm. am na nga xamante ne dafay xeex ak gémmiñ gi. Mhm. ginnaaw loolu tamit ak le temps maanaam waxtu bi nga xamante ne ñam bi dafay des sa biir gémmiñ. waaw li jëm ci ñam yi nag dafa am ñam yi nga xamante ne dafa am suukar. maintenant suukar si nga xamante ne moom moo nekk ci biir ñam yi. moom la microbe yi bactéries yi. di jël transformer ko acide. waaw nga dëgg maintenant acide boobu noonu nag moom mooy bënn bañ bi wala mu lekk ci ñi. daanaka acide bi day mel ni kuy lekk bañ bi ci biir lekk bañ bi ci biir. ak ba pare waa tamit di lekk siñ bi. moo tax dañuy faral di wax naan euh, bëñ weex na waaye deret a ko lal. waaw loolu wolof bu xóot la waaye dëgg la. <laughs> science prouvé na ko. mooy lan mooy boo xoolee ci biir bañ am na sidit bi nga xamante ne moo fay daw. donc deret googu noonu nag di daw moom mooy jokkaloo xol bi. Mm-hmm. moo jokkaloo yeneen cër donc ci biir deret boobu noonu nag bu fekkente ne nit ki euh, lekk na lu saf suukar wala lu ni mel bactéries yi jël suukar soosee nag transforme ko avec le temps c'est-à-dire plus muy gën a yàgg ci gémmiñ gi rek plus muy gën a am temps pour transformer suukar si en acide maintenant nag acide boobu noonu nag mooy bënn bañ bi mm-hmm. di ko bënn di ko bënn bu ko bënnee nag ba xóot mooy pax bu ñuul boobu noonu ñuy faral di gis ci bañ bu demee ba xóot nag ba laal deretu bañ gi nag loolu mooy nax nit ki di commencé di am bëttitu bañ et cetera et cetera. su ko defee moom nelaw dootoo ko def. dootoo ko defati moom moom moom ñi jot a dal xam nañ ni mu demee. exactement donc problème yi boo xoolee foofu lay jógee. ci ñam bi la jëm ci gémmiñ gi. bu demee ci gémmiñ gi bactéries yi transformé ko. bu ko transformé en acide nag mooy bënn bëñ bi et cetera avec le temps nag. avec temps muy dem di ko lekk bañ di la yenn problème yi. Mhm. dëgg la donc daal pour la déggee bu baax a baax a baax a baax docteur kon. Mhm. baax na kon ci ñu au moins lekk boobu noonu ñuy fexe mu bañ di taxaw. Mhm. ci bëñ bi. ok loolu dugal nañu directement ci ñu thème bi nga xam ne moom la ñu bëgg waxee muy cataayug bëñ. Mhm. dëgg-dëgg gis nañ ni nit ñi pour bañ seen lekk bi taxaw ci bëñ ak yooyu noonu. dañu utiliser ay brosse ñu dañu utiliser ay pâte ainsi de suite mais ci hygiène bi ko dentaire mhm. ban brosse moo gën a baax parce que dañu gis ne Sénégal. ñoom daal d'habitude bu ñu jënd boros dañ naan la bu mu gën a dëgëree rek. gën a baax d'habitude bu ñu demee jaay daal na gën a dëgër rek jaay ma boros bu dëgër. ban brosse lañ mën a utiliser pour éviter li nga wax nii léegi léegi léegi. Mm-hmm. waa kay balaa may ñëw ci laaj bi gën a firndelaat njëriñ bi nga xamante ne moom moo tax nit ki bu lekkee mu gaaw mu brosu ndax mm-hmm. wax nañ ne plus lekk bi di gën a yàgg ci gémmiñ gi plus. bactéries yi di ko gën a mën a am temps wu transformé moo tax nag ñuy faral di wax nit ñi naan bu ngeen lekkee ba pare rek da ngeen war a gaaw brosu wala ngeen galaxndiku pour débris alimentaires yi maanaam desitu lekk bi nga xamante ne moo des ci bëñ yi kolewu mhm. ci bëñ yi bañ fa yàgg ndax lu mu gën a yàgg rek bactéries yi gën a profité donc loolu moo tax ñuy gën a ñaax nit ñi gannaaw bu ñu lekkee rek ñu gaawantu ñu borosu wala ñu galaxndiku wala ñu socc. dégg naa maintenant ci ñëw ci choix bi nga xamante ne nit ki moom la war a def pour choisir brosse à dents pour euh, xam ban brosse à la war a utiliser. Mm-hmm. dañuy faral di dégg nit ñi di wax naan euh, bu ñuy jënd brosse à dañuy tànd bi ci gën a dëgër. bu sax sonn. donc pour ñoom lu brosse bi gën a dëgër rek. ci lay gën a mën a sete. waaw alors que du loolu. Mm-hmm. ndaxte bu fekkente ne tànn nga brosse bu dëgër. rawatina ba pare nga tegaat ci sa doole def ci doole bu rëy bu yàggee dafay xoos émail bi maanaam lu weex li nga xamante ne moom mooy feeñ ci bëñ bi. Mhm. te di ko protéger. donc brossage bi ajoowul doole. aajoowul mhm. ut brosse à dents bu bu dëgër. donc brosse à dents bu ñu gën a conseiller nit ñi population générale bi moom mooy une brosse à dents souple wala médium. wala médium donc waa kay donc souple wala médium donc poil yi maanaam dunq bi nga xamante ne moom la moom moo nekk ci ci brosse bi mooy lii nii. waaw du nekk loo xamante ne dafay dëgër. dafay dëgër këj day nekk lu nooyi. ba pare waat tamit bopp bi warul nekk bopp boo xamante ne dafay ngand su fekkante ne nit ki dafa am gémmiñ gu tuuti. Mhm. mu daal di jël brosse à dents brosse brosse boo xamante ne bopp bi dafa ngand. donc brossage bi du efficace. du efficace kay. yaa ngi déggante donc dafa am ay bopp yi nga xamante ne yu yem la. Mhm. amee yoo xamante ne yu ndaw a ndaw la. pour xale yi donc loolu tamit am na si important. Mhm. mooy poil bi. mooy lii nooyaay bi et cetera. ak bii tamit mu nekk bopp boo xamante ne bopp yem lay. doon lay doon. donc loolu moom bokk na si critères yi nga xamante ne nit ki buy tànn brosse à am mu bàyyi ci xel bu baax ci xel bu baax a baax jërëjëf docteur donc daal bu ñu la déggee bu baax a baax a baax daal mën nañu wax ne médium. Mhm. ak souple bi daal. mooy mhm. brossage bi nga xam ne nii. tan nañ ko ci bi nga xamne ni deugur lay gi dal mm-hmm. mm-hmm. fekke tamit bob bi mu nek bob xawa yam pour que au mm-hmm. moins sama classe nga xamne seen gemi ñu reuyul ñu mën ko adapté wu effectivement voilà légui en plus bu fekke pour jégué nañ ci brosse bi légui ci pat pat dentifrice tamit aussi tamit ban pâte dentifrice dañu war a mën a digal nit ku ne. Mhm. ban pâte dentifrice moo baax pour éviter yi nga xam ne nii tey dina mën a indi problème dentaire. Mhm. waaw pâte dentifrice moom daanaka chaque jour nga gis ñu génneel la pâte dentifrice bu bees. donc ci oto yi ci publicité yi. fu ne ngay gis même boo demee pharmacie tamit da nga fay fekk ay pâte dentifrice. yu dul jeex maa la wax loolu. donc loolu nag face à ça nit ki dina am jafe-jafe pour choisir ban pâte dentifrice la war a la war a choisir. ban mhm. moo si gën a baax ndaxte ñun ñii sax tout le temps nit ki dafay ñëw di la laaj ah man ne ban pâte dentifrice nga may digal ban pâte dentifrice nga may digal loolu dañ koy faral di di jot lu bare bare bare mhm. bare bare mhm. waaye di leeral rek juste que ne lu si gën a important ci pâte dentifrice bi nga xamante ne nit ki moom la war a choisir ak pâte bu mu munti doon muy pâte classique et cetera. ndax sa pas d' entreprise yi dafa bëri ay catégorie. waaw am na yi nga xamante ne ay pat classique la. waaw mooy nit ñëpp mën nañ ko utiliser. mën nañ ko utiliser am na ay pat yoo xamante ne c' est spécifiquement pour traiter. c' est à dire que da ngay dem ci dentiste nga am problème sensibilité mu bindal la pas d' entreprise pour sensibilité. pour loolu waaw nga dem ci dentiste nga am problème mu signe. Mhm. mu bindal la pas d' entreprise bi nga xamante ne dafay faj signe yi. dëgg la waaye bu ñëwee nag ci pas d' entreprise classique yi nit ki buy tànn bro pas d' entreprise am day xool ci gannaaw carton bi. Mhm. dañ fay bind ay chiffres. waaw maanaam lu pat bi lan la am ci biir. lu ci ne. lu ci ne ci biir. dafa am li nga xamante ne nag loolu moo ci ëpp solo moom mooy fluor bi donc quantité de fluor bi pâte dentifrice bu normal bépp boo xamante ne pâte dentifrice normal la boo xamante ne euh, njëriñam kenn naatable wu ko forcément ci gannaaw dinañ bind. ñaata la am quantité fluor. maintenant ci quantité fluor bi dafay varier entre mille quatre cent ak 1500 donc chaque fois di nga gis 1400 1500 ppm fluor. Uh-huh. donc soo ko gisee rek loolu mooy wane ne pat dentifrice boobee. Euh, adulte maanaam mag ñi. war nañ ko mën a jëfandikoo pâte dentifrice boobu noonu kat pâte dentifrice bu baax la. maintenant nag nit ki mooy yokk choix am ci goût bi ci peut couleur bi nga xamante ne mm-hmm. moom la koy pâte bi di wan mm-hmm. loolu choix wu la. daal loolu choix wu nit ki la. mais ci ëpp solo mooy quantité fleur. quantité fleur maintenant bu dee xale yi nag. Mm-hmm. am na quantité de fleur boo xamante ne moo gën a néew que 1400 donc là. xale bi tamit bu demee officine euh, dinañ ko wan maanaam pharmacie. bu mhm. demee dinañ ko wax ne ko ah bii mooy pâte dentifrice pour xale. pour xale ndaxte quantité fluor bi yeggul 1500 et cetera. ok dëgg la jërëjëf docteur ci leeral yi. daanaka leer na naan ñi suñu mbokk yi nga xam ne parfois danga naan jot. par dante fils boo romb jënd wala boros hmm. ada boo romb jënd daanaka boo dégluwee tey jii ñi docteur mamadel basum hmm. di nga xam ne du n' importe quel pat nga war a utiliser mais aussi du n' importe quel boros nga war utiliser waa hmm. docteur am nañ pat am nañ lah boros waa léegi naka la ñuy borosoo parce que man dama gis ñu ci benn classe ak samba gisee gi yor nañ seen boros mais dañuy buux rek muy xëcc di ñëw di xëcc dëgg dëgg dëgg méthode de brossage nan lañ war a mën a borosoo pour jële ci njëriñ ah, fog naa ne partie bi moom moo ëpp solo sax <laughs> ci ci émission bi ndaxte dañuy faral ay mënuñ borosu ne Sénégal waaw waaw lu waay neex borosoo nañ dugal ci gémmiñ bomb rek lañ xam effectivement donc da ngay gis ñu bare bare bare bare ñoo xamante ne tout le temps dañ naan la ñoom dañuy brosu mais duñ dem di am ay problème bu bëñ waaw duñ dem di am ciñ guy nàcc mhm. donc loolu ci méthode brossage bi la ci méthode brossage bi mhm. moom moo baaxul yenn saay dëgg la donc lu si ëpp ci nit ñi bu ñuy brosu ñii la ñuy def méthode horizontale la ñuy def maanaam dañuy jël brosse bi def ko nii tëral ko. di ko def nii di bomb rek di bomb rek. waaw am na ñoo xamante ne dañ ciy def doole. doole bu baax a baax a baax a baax. dëgg la pour ñoom lu ñu ciy gën a def doole. Mhm. muy gën a set wala muy gën a muy gën a muy gën a baax. waaw alors que méthode boobu baaxul ndaxte méthode bi boo ko utiliser da ngay xoos émail bi. maanaam lu weex li nga xamante ne moom mooy feeñ ci bëñ bi. di ko protéger da nga koy xoos. ndax doole bu ñu ciy def. ba pare wax tamit da ngay gaañ signe bi. kon nag ñëpp ngi xool seen bëñ Sénégal. donc ñu si ëpp noonu nañu ñu. broso moo tax nga gis koo xamante ne moom fii bëñ nii day weex nii. mais ci kaw li diggante signe bi ak bëñ bi dafay am tout le temps ay ay ay taches jaunes yoo xamante ne daf nekk. fay nekk que nu muy broso moo dul baax. moo dul baax. donc loolu nag pour ñëw nag ci technique bu baax bi mooy booy broso da ngay commencer ci signe bi wàcc ci bëñ bi donc ci signe bi ngay commencer. ngay tàmbalee def niy wàcc ci bëñ ci kaw ci kaw ngay jugge wàcc ci suuf maanaam ci ciñ gi mhm. di wàcc ci bañ bi mhm. méthode bi boo ko dina am ñetti njëriñ benn bi mooy di nga nettoyer siñ bi beneen bi diggante siñ bi ak bañ bi poilu boros yi dinañ fa dugg fa dugg kay ba pare teg si nag di nga raxasaale bañ bi ci boppam mhm. donc soo defee nii rek ça suffit après lii waat tamit aajoowul nga si def doole gu bare bare bare bare rawatina nag waaw rawatina nag bu fekkente ne da ngaa lekk rek jublu ci brossage bi donc daanaka affaire yi du dëgër. donc yu noy lay doon. Mhm. donc de ce fait soo defee nii rek jóge ci ciñ bi wàcc ci bëñ bi rek mhm. set. donc ngay jóge fii nag ci biti jëm ci biir. même chose. Mhm. nga def même chose nga ñëwaat beneen côté bi. nga defaat noonu jóge ci ciñ bi wàcc ci bëñ bi ci biir. tamit même principe la da nga toujours yow objectif mooy lan ci signe bi ngay jëm ci. jóge ci kaw du rose vers le blanc. ok léegi ci biir nga defaat nii. jóge ci siñ bi wàcc ci bëñ bi. jóge ci siñ bi wàcc ci bëñ bi soo paree fii nag mooy fi nga xamante ne foofu ngay yéeyee. waaw nga daal di koy boros ndaxte mm, dafa am ay pax. Mm. dëgg la te pax yi ñam yi des fois dañ fay des. Mm. donc foofu tamit dañ koy nettoyer. ok lii moom mooy ci kaw bu dee ci suuf nag dangay ngay jóge ci siñ bi jëm ci bëñ bi toujours donc ci suuf ngay jóge jëm ci kaw. donc nga def nii boobu ci suuf ngay jóge waaw ci suuf ngay ñëw ci kaw. waaw nga def nii def nii def nii def nii def nii def nii. def ni def ni def ci biir aussi. ci cin bi ngay jógee. dem ci bëñ bi. dëgg la ci biir donc technique bi luñ ci war a téye mooy lan mooy chaque fois ci ciñ bi ngay jógee wàcc ci bëñ bi. donc di ko boo ko jàppee noonu daal. rek doo sonn gëm naa ne doo juum doo sonn doo juum doo sonn. dëgg la ngi jógee ci ciñ bi ci bëñ. di jëm ci bëñ ko ba mu set. waaye tamit am na loo xamante ne lu am solo. te nit ñi chaque fois bu ñu boros dañ koy fàtte mooy mm-hmm. làmmiñ bi. làmmiñ bi des fois day faral di téye ay ñam donc da koy tiire nga daal di koy nettoyer laal fa brosse bi légèrement donc nettoyer ko ba mu set bañ a bañ a bañ a brosse ba ñu kese bañ brosse ba ñu kese am na solo am solo waaye tamit am na leneen lu gën am solo uh-huh. am na ñoo xamante ne dañ naan la dañuy brosse certes dañuy brosse am nañ brosse à dents am nañ pâte dentifrice bu baax ñu ngi brosse saa yu ñu lekkee mais suñu brosse daanaka duñ def sax une minute duñ ci dañuy dugal rek def nii vite fait bàyyi mu dem non non bi gën gaa néew gën gaa néew gën gaa néew nit ki war na def 3 minutes. 3 minutes lépp lépp mën a set lépp mën a set. dëgg la def 3 minutes. waaye boros yàkkamti set waaw aajoowul yàkkamti <laughs> ndaxte boo yàkkamtee dina am ay zone yoo xamante ne da nga koy fàtte. da koy fàtte am yoo xamante ne doo ko nettoyé bu baax. dëgg la donc da ngay jël sa temps. nga def ko pendant 3 minutes nga nettoyé ko ci biir ak ci biti. Mhm. làmmiñ bi buñ ko fàtte. deug la masha allah docteur mamadel basso masha allah danaka lerr nañu dal ci nuñuy boroso dam nañ mom xanaane bo leen jugge fi su ko defé comme nima ko waxé mbokki classe ak sama gisi gi mom une bonne fois pour toutes di ngay mëna xam légui naka lañu boroso bañ di duggo rek di bombu te xamné da ngay jugge ci ciñ bi wacc ci bañ bi voilà bu dé ci souf la yeen nga jugge ci ciñ bi yek ci bañ bi waaw lool dal moy nga xamné ni protocole bi nga xam docteur mamadel basso joxé nako ta muy protocole bi nga xamné baxna pour nga mëna am brosse à dents wala bu nga brosse gémi normalement docteur légui ñu ci programme ci fréquence brossage bi par exemple ñaat mhm. yoon la war a mën a brosu par jour mhm. saa su ko neexee brosu la wax nañ boo mhm. lekkee rek brosu waaw mhm. mais léegi bu dee da nga def ay njoganal ci diggante bi añ nga diggante bi nga lekk da ngay brosu wala doo brosu ñaata yoon daal nit ki war a brosu par jour pour mu leer ko ni doom yenn bu jafe-jafe yi ok donc euh, dañ daan faral di wax naan ñetti yoon ci bés bi waaye léegi boo xoolee ak jamono gi nu mu ñi ñi heure añ feneen la leen di fekk et ñu gis ne kat ñaari yoon par jour mooy lan mooy ginnaaw bu mu ndékkee ba pare ak mbalaa moo tëdd mbalaa moo tëdd léegi nag dañuy faral di gis yenn saay nit ñi dañuy bu ñuy bu ñuy yeewoo rek automatiquement dañuy dem borosu fekk ñoom ba ñuy tëdd sax borosu wuñu borosu wuñu teg ci waaw teg si donc loolu amul sens amul sens li gën a important mooy nit ki mu respecté ko su ndekkee ba pare. ak mbalaa moo tëdd. soo ndekkee ba pare nga borosu mbalaa ngaa tëdd fekk reer nga ba pare nga borosu bu boobaa nag boo yeewoo aajoowul ngay borosu. dëgg la ndaxte c'est comme si mbalaa ngay tëdd pièce bi ñu nekk nii ñu raxas ko ba mu set. xam nga bu ñu yeewoo du tilim. donc aajoowul ñu koy ñu koy ñu koy nettoyé. Mm-hmm. donc da ngay bàyyi ba ndékki ba pare nga daldi kay nga daldi brosu donc ñaari ñaari ñaari ñaari mom ay yoy nonu mo upp solo ci brossage ci brossage moy nit ki bu ndeké ba pare ak avant muy teud tamit muy def au moins 3 minutes donc lolu c'est important c'est très important c'est très important nga xamné au moins nga yag ci brossage bi bañ ko def brosu yakamti rawati na nak mom bala nga teud bi bobu mom vraiment mom mo upp solo ndax té su fekkante né rer nga ba pare ñami dess ci bir nga fanano ak mom lolu mo gëna mëna gaaw indi ay problème donc nit ki dal eh, ñaari moment yooyu moom lu am solo la mooy buy bu ndekkee ba pare ak mbalaa moo tëdd ñu farataal brossage am na solo am na solo parce que la nga solo wax am solo nga wax parce que dañu gis ne am na ñoo xam ne ñu ci bëri. Mhm. dañuy yeewu rek brosse. bu ñu yeewoo borosu ndékki ba pare nag mhm. ñam yi tak fa ñu doogoy doxi seen soxla mhm. balaa ñuy borosuwaat guddi la fekk na ne comme ñam yi nga wax noonu dugg na mhm. fenn jaar yàq yenn yàq yi kon buñ la toppee daal topp sa recommandation yi nga wax mën nañ ci jëlee njëriñ jërëjëf ci leeree docteur <coughs> Mamadou Bassoum léegi nag euh, lu ma bëggoon a xam au moins askan wi koy mën a jariñu mooy en plus brossage wala boog en plus tey nii brosse bi nit ñi di utiliser ñii ay cure dent la ñuy utiliser ñii ay fil dentaire la ñuy utiliser maanaam yooyu yenn recommandation lañ ciy joxe ndax gis nañ na ñoo xam ne même bu ñu utiliser boros boros peut-être mën na bañ a yegg fenn foo xam ne ni ci seen gémmiñ du leen mën a dindi salte yëpp mhm, mhm. nan lañ mën a def ba salte yooyu dañ ko ok waaw loolu la ñuy wax euh, les adjuvants au brossage c'est-à-dire que euh, ay ay ay kii la yoo xamante ne day ñëw compléter brossage bi mhm. brossage bi gën a mën a set bokk na si lu ñuy wax ay fil dentaire donc ay fil la yoo xamante ne dañ koy jaay ci eh, pharmacie ba donc euh, da eh, nga koy utiliser ci diggante bañ yi bëggante bañ nga koy jallale parce que des fois brosse bi mën na fa bañ a yegg mën na fa bañ a yegg boko fa dugalé mhm. eh, xëcc ko day génné salté bi salté bi nga xamantene mo fa nekkon mom lañ wax et fil dentaire lolu c'est des adjuvants au brossage day ñeu gëna compléter brossage bi brossage bi gëna baax gëna efficace amna solo ah, benen bi moy bokku na ci lu melni les brossettes interdentaires ay brossette yu ndaw la ay brosse la. mais yu ndaw lay doon. ndaw yoo xamante ne dina mën a dugg ci diggante signe bi ak bëñ bi. kon nit ki ni muy jëfandikoo cure-dent. Mhm. loolu nag damay ubbi benn buntu euh, gën a ñaaxaat askan wi xamal leen ne leen cure-dent dafay yàq diggante signe bi ak bëñ bi. cure daal nekk na loo xamante ne lu ñu tere la. ndaxte bu fekkente ne nit ki dafay utiliser cure-dent bi dugal ko mu dugal ko ci diggante signe bi ak bëñ bi. Mhm. cure bi dafay gaañ signe bi. mooy waral des fois muy nàcc. ba pare beneen bi mooy dafay yaatal diggante signe bi ak bëñ bi. day dem yaatal ko waaw. loolu mooy waral nag nit bu fekkente ne dafay faral di utiliser cure-dent lu bëri saa yu lekkee ba pare rek. fu daan faral di dugal cure-dent fois daf fay dugalaat cure-dent parce que yaatal na ko ba pare nekk na yoon donc dugg mu nekk na yoon comme ni nga ko waxee ba pare nag saa yu lekk rek mu dugg fa saa yu lekkee rek mu amaat envie jëlaat cure-dent dugal ko fa daal di koy pour dindi salte yi mu gën a gaañaat signe bi muy gën a yaatu tamit très bien boobu bu yàggee mu koy indil ay problème yu bare bare bare bare bare bare dëgg kon daal Kurdan nawloo wuñ ko bu ñuy wax nawloo wuñ Kurdan ñun ñun daan ci si daal nawloo wuñ Kurdan donc dañ koy tere donc nit ñi ñuy dem seen dentiste déjà dina leen conseiller lan la ñu war a mën a utiliser. waaw beneen mën nañ jënd à la pharmacie lu ñuy wax des brossettes interdentaires mooy li ma doon wax léegi. moom mooy remplacer cure-dent moom comme brosse la dafa am poil. mais poil yi ndaw lay doon. tuuti lay doon tuuti mhm. si dugalee non seulement dina nettoyer ñam mais du gaañ siñ bi. du gaañ siñ bi bu yàggee dina ñëwaat place am te bu ñëwaatee place am dina tëju tëju goo xamante dootul aajoote ngay ngay ngay ngay ngay boobu sax si boppam waaye cure bi moom boo koy utiliser foofu nga koy day gas cure day gas waaw moo tax boo seetloo nit koo xamante day utiliser cure nga bàyyi ko xel mhm. chaque fois fu muy utiliser cure-dent bëñ bi mhm. même ruq bi foofu la koy utiliser dëgg la donc macha allah am na solo ñaaxaat na solo am na solo naa ko mhm. information yi a ma yar mhm. euh, ñoom moom boros à dents moom mhm. ay pat yi moom bokkul seen jëmukaay mhm. seen àdduna yëpp socc la ñoom socc rek boo waxee ñu ne loolu man daal la baax na baaxul lu ñu war a utiliser la ñaata lañ ko war a mën a utiliser socc lu ci dante si wax waaw waaw socc socc moom bëri na ay vertu ndaxte traditionnellement c'est un outil boo xamante ne fii lañ ko fekk te suñu mag ñi moom lañ daan utiliser. Mhm. te macha allah dañ si doon am ay résultats. Mhm. donc ba pare waat tamit am na ay nit yu nga xamante ne ñoom amuñ njëgu jënd brosse à dents. dëgg la amuñ njëgu. Je pat dentifrice. loolu donc nous noonu mënoo leen tere socc. mënoo leen juste ñaaxaar leen ne kat socc ay vertu ay ay composants yi nga ci mm-hmm. mm-hmm. donc am ay études yoo donc ku professeur Massamba Diouf donc di épidémiologiste. Mm-hmm. à l'université di professeur en santé publique. donc def études yépp ay boromi xam-xam. Uh-huh. def nañ ci ay études même avant moom. Uh-huh. donc euh, socc moom nekk na loo xamante ne lu am solo la ay juste wax ñi ñi ne. Euh, comme nit ñi niñ koy defee nga gis nit koo xamante ne day jël socc rek suba ba ngoon rek muy socc. 24 heures sur 24 24 heures sur 24. du génn ci génn xam nga loolu. loolu amul sens. parce que socc bi njëriñ bi mooy nettoyer raxas. waaw donc boo ko raxasee ba mu set aajowul nga koy dugalaat ci gémmiñ gi maintenant mouvement de frottement yi ngay def nga xamante ne à longueur de journée nga koy def bu yàggee dafay xos émail bi. Mhm. bu yàggee dafay mën na dagg siñ bi et cetera. jarul doole donc jarul doole jarul mu ci yàgg aussi. donc nit ki na socc rek ndax objectif bi mooy raxas. gémmiñ gi raxas ko ba mu set. maintenant nag su fekkente ne nit mën na utiliser brosse à dents ak pâte dentifrice ba pare. teg ci soccom mooy li gën foofu ndaxte euh, pâte dentifrice bi dafa am ay ferñeent yu ci nekk yoo xamante ne dafay gën a dooleel bëñ bi dafay gën a protéger bëñ bi donc loolu mooy njëriñu pâte dentifrice bi donc bu ci jógee nag mhm. laa mën na utiliser soccam waaw

bala seti dentiste bañum dafa metti mhm, mhm. mom mom bu amé bañum metti bam téré ko nelaw wala mu neuy ba toll no xamni ni ken xamul ci lay seti dentiste mais ci ñu japp né par exemple yeen fréquence de visite la wara mëna am au niveau dentiste sénégalais mhm, eh. wala bok ci yoon kañ nga wara seeti dentiste bi waaw eh, kañ nit ki kañ nga wara seeti dentiste déjà da nga da nga ubbé lu nga xamanté né moy lu am solo mooy nit ñi du ñu gaaw di dem ci dentiste. dañuy bàyyi ba nga xamante ne vraiment seen bëñ néewi na wala métti na yenn méttit yi ba mënatuñ ko muñ. ci la ñuy dem ci dentiste. wala ah. sax gis koo xamante ne dafay métti. Mm-hmm. mais ndegam kee demoon na ci dentiste ñu bindal ko benn garab rek moom tam mu jël garab ba naan ko. te garab ba loolu moom ci domaine médical yëpp. nekkul ne kii dem na ci médecin. médecin bi bindal na ko garab bi. faj na ko wér na. Mm-hmm. yow rek nga am même chose. Mm-hmm. rek nga ne yow tamit da ngay jël garab boobu noonu pour faj ko don loolu amul sens conseillé nit ñi mooy euh, bu amee dara lu leen jaaxal si seen gémmiñ mm-hmm. ñu gaaw dem ci dentiste mm-hmm. donc dentiste yi déjà commencé nañu bëri bëri na ay cabinet privé hôpitaux yi daanaka fépp foo dem macha allah da fay fekk ay dentiste donc ñu gën a ñaaxaat askan wi ñuy faral di dem ci dentiste mm-hmm. maintenant li nga xamante ne dañ ko recommandé mooy nit ki war na ko dem ci dentiste dañ naan gën gaa néew gën gaa néew nit ki war na dem lu mu dee dee dee benn yoon ci at bi mu dem ko ci dentiste. seeti ko dentiste bi xoolal même bu dee dara méttiwu ko. dara méttiwu mu dem ci dentiste bi dentiste bi xoolal ko. Mhm. xoolal ko gémmiñam baxam xam amul ay ay ay caries yu commencé di am ba amul problème mu signe. dëgg la su fekkente ne tamit am na yoo xamante ne maam. ay tarte mooy ay taches jaunes yi nga xam te ne nekk ci diggante ciiñ bi ak bëñ bi. waaw collé aussi te brossage bi mënu ko dindi. Mhm. dentifrice moo la koy dindi raxasal la ba mu set. su boobaa nag nga amaan gémmiñ gu bees bu set wecc. loolu nag boo koy faral di def fagaru gën faju jeex na donc loolu la donc gën gaa néew daal nit ki mën na dem une fois par euh, par an. ci dentiste at bu ne bu dee dara méttiwu la amul benn jafe-jafe yu bëñ. waaw naa dem seeti docteur Mamadou El Bassoum pour def juste contrôle. contrôle xool ba xam samay bëñ amul problème. bu dee nag mën na dem chaque 6 mois nag mooy li gën. mooy li gën waaw rawatina nag ñi nga xamante ne dañoo am ay diabète wala ñi nga xamante ne dañuy tux ndaxte cigarette bi dafay yàq bëñ et cetera wala ñuy naan ay café yu bare et cetera ñooñu moom dañoo faral dañoo war a di bëril seen tànk sax ci dentiste ndax li mu dee chaque six mois dañoo war a dem wala ki nga xamante ne moom dafa remarqué ne tout le temps dafa am ay problème bu bëñ kooku moom chaque si mois dafa war a dem ci dentiste mu xoolal ko bëñam et cetera dëgg la jërëjëf docteur del Bassoum yaakaar naa ne xam-xam bi leer na te daf mm-hmm. naa ne nekk na njëriñu képp koo xam ne mi ngi koy déglu fii ci Géejawaay info mm-hmm. euh, docteur léegi nag daanaka ñu ngi suñu njeexatalu émission lan ñu mayoon ci waxtu jeex na mm-hmm. euh, lan rek mooy nekk sa kàddu gu mujj gannaaw ba nga ñu joxee le résumé ci lépp loo xam ne rek jëm ci brossage ak hygiène bi ko dentaire waaw euh, sama lu may tàggatoo mooy juste ñaaxaat askan wi ci bas mi nga xamante ne ci lañ nekk Euh, mu nekk loo xamante ne lu métti. Mhm. ndaxte soo demee ci hôpitaux yi da koy xam. gis nit ñi ni ñu sonnee. Mhm. rawatina jamono yu mujj yi ni ñu remarqué euh, ñi ñi nga xamante ne faatu nañ ci mu doon lu baree baree. baree baree bare ñu ciy jaale seen mbokk yëpp. Mhm. waaye loolu luñ ciy wax askan wi rek ñaar la benn bi mooy ñu déglu ñi nga xamante ne. ñooñu lañ war a déglu maanaam les experts ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci domaine boobu noonu ñu leen di déglu waaye fan yi chaque jour da gis koo xamante ne fu nekk lay fële taxaw di wax lu ko neex donc ñuy ñaaxaat askan wi ñu déglu ñu nga xamante ne ñoom lañ war a déglu maanaam ñu jox ko li moom ku nekk ñu jox ko lu mu moom dëgg la conseil ñu leen di jox ñu koy appliquer à la mm-hmm. lettre mm-hmm. beneen bi mooy les mesures barrières les mesures barrières maanaam nit ñi di faral di utiliser gel. wala di raxas loxo yi. sol masque yi donc di garder distanciation sociale bi. dëgg la maanaam bañ dendoo bi. Mhm. bañ a bañ a bañ a jegeyantoo trop trop. éviter rassemblement yi éviter rassemblement yi. donc yooyu daal foog naa ne euh, nit ñi buñ ko defee. Mhm. Euh, dina nekk loo xamante ne daal. dina yàlla dinañ ci musal dinañ ci musal bu baax. encore une fois dégluwaat borom xam-xam yi. borom xam-xam yi lépp lu ñu wax lu jëm que ça lu jëm ci vaccin lu jëm ci leneen ak leneen ñooñu bu ñu ci waxee ñu ci wax ñu gëm ko ñu xam ne ñooñu kat duñ ñu digal loo xamante ne daf ñuy lor. dëgg la ndaxte ñoom ñu koy wax ñoom ñoo koy njëkk a def. ba pare waat ñooy dañuy ñaax seen i njaboot ñu koy def. waaw donc ñu gën a ñaaxaat askan wi ñu déglu experts yi. am na nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu ñu leen déglu ñu topp seen conseil. dëgg la jërëjëf docteur Mamadou El Bassoum ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu taxawaay bi di rafetlu it disponibilité bi nga am ak OF gi ne ci yow. Mhm. Euh, dañ la woowee rek ne la kii émission wax dëgg yàlla defoo ci benn jafe-jafe. Mhm. di ñaan yàlla yàlla gën a dëgëral sa la mag moo xam ne dañ lay dem di la dégg fu ne. Euh, yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla mbokk internet yi Géejawaay info ñu ngi leen ah. di leen nuyu di jeexal émission bi fii di wax ne. Mhm. dinañ dikkaat ci beneen émission euh, seen santé bi nga xam ne nii waa Géejawaay info ñu ngi koy amal di dikkaat ak beneen invité. salaamaaleykum